rawatina ñi nga xam ne mu ngi ci def tawféex di ñaan bi ak paj bi ba ñu bëri safoo ko aca tey nag ki may dalalaat tey moo di Cheikh Ibrahima Gaye tey ñu fas yéene waxtaan ci ni ma ko waxee saa su nekk actualité di xew jamono duñ ko fàtte ginnaaw ndax uh, lii di ay di njàmbat ci yaatal bu baax ci mbirum sport aca Cheikh Ibrahima bàyyi nga ñëw mbokk askan bi de sa euh, alhamdulilah salaamaaleykum wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu di ñaanal yàlla suñuy wayjur yi eh, ñi fi nekk yàlla yàggal leen fi ñu jiitu yàlla xaare leen ajina di ñaanal xalifa généraux yi nga xamante ni ñu ngi fi Sénégal eh, yàlla may leen kattan ak wér ba mission bi ñu nekk ñu xeggale ko fañ soxla salaamaaleykum maa ngi nuyu internetu 221 people yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima Gaye ñu ngi lay fay bu baax a baax ginnaaw sine yu set yooyu to ànd ak dal ñu ci kontaan bu baax laat la ci sit bi ni koy def ak say naataango <coughs> aja tey nag fas yéene ñoo waxtaan ci xam-xam su ma nee xam-xam dinañ ci jël ponk yu xaw a ala daw mais yaatal ci bu baax a baax mm-hmm. dellusiwaat ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi ci yëngatu bu baax waaye dinañ dellusiwaat ci paj bi nga xam ne suñu borom am na loo xam ne dénk na la ci actualité ni ma ko waxee dañ ko fàtte rawatina sport bi ci football dinañ ci yaatal bu baax baax. Mhm. waaye tey daam foon xamante ni fa la namoon tey ñu njëkkee foofu. Mhm. su ma nee fa la ñuy njëkkee ndax euh, yàggu dara def nañu émission mu mel ni nag loo ci commencé boo nga dolliwaat ko ndax xam naa nit ñi ñu ngi ñëw ak doole. Mhm. mu di mbiru téere bi foofa lay tàmbalee tey. Euh, alhamdulilah macha allah am nañ mbégte bu baax gannaaw ba ngeen fi ñëwee ñëwaat fi. ñu ngi sant yàlla bu baax. Eh, eh, que ne bu fekkoon ne gis ngeen benn melokaan ci ñun. melokaan bu dëppuwut ak bi ngeen soxla. Mhm. wala bu seen eh, internet soxla. yaakaar naa du ngeen fi dellusiwaat. Mhm. sant nañ yàlla tamit ba nga xam ne nit ñi ñu ngi bàyyi xel suñu communication. Mhm. ba jamono bi nekk rek bépp communication boo xam ne def naa ko ci internet bu mu mënta doon rek. dinaa jot ay appels yu nga xam ne ay félicitations lay doon. Ah. ak ay encouragement Euh, ñu si bëri ne dañuy encouragé bokk na si suñu euh, dëggu. ak doxalin bu nga xamante ñu ngi koy doxalee ak euh, ñi nga xamante ni ñoo ñuy ñoo ñuy ñoo ñuy yittewoo. Mm-hmm. ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla ngeen ñaanal ñu. Mm-hmm. internet yi ñaanal ñu. fi ñu teg suñu tànk bu ñu dara mën a fakkasal bañ teg ko. Mm-hmm. laaj nga ma ci téere yi nga xam ne moom la ñu wane woon keroog. Ah. nga ñaanal yàlla tamit yow. comment gën a bëri alhamdulilah amin Euh, ba tax na bañ koo commencé defar ba léegi amuñ ci gàcce te li mu ciy wax nit ñi rek euh, mooy képp ku nga xamante ni yëkkati naa ko ma jox la ko. Mm-hmm. lañ la ci wax gisu la ko ñëwal ma dellowaat la sa xaalis. loolu aw ma aw ma lu ma ci sikki sàkk. Mm-hmm. parce que dama xam euh, secret bi ci nekk dama xam tamit li muy def ci nit ki gàllankoor yi muy dindi. Ah. ak fi mu koy eggale ci wàllu wërsëgam dama ko xam. Mm-hmm. ba tax na liñ ciy laaj duñ ci yokk duñ ci wàññi taxul nga nekk milliardaire ñu yokku ci. wala nga néewle tamit ñu ñu wàññi ko waaye liñ ci mën a dimbalee nit ki ci wàññi. Mhm. mooy trente cinq mille yi ma koy joxe. mën na ci dimbalee nga am li nga am nga joxe ko li ci des nga bàyyi heure boo ko amee nga mottali. Mhm. Euh, te dama xam ne di ko am balaa yàgg dara. ndax xam naa li ma la jox lan la. macha allah euh, ba tax na euh, ñu ngi sant yàlla si yi nga xamante yàllaa ñu siy suturaal. Mhm. ñu siy jëflante ak nit ñi. amaguñ ci benn gàcce te alhamdulilah ñi ngi ñaan yàlla. Euh, duñ ci am gàcce te saa su nekk ñi ngi def ay jéego pour nan la ñuy def ba dimbalante ak nit ñi seen soxla. tarkal la mhm. kon mu ngoog euh, téere yaa ngi noonu ci li nga xam ne moom la ci jëfanteek mhm. jaamu yàlla yi mën naa ne bëri na bëriwut mhm. waaye ñàkk koo am wóorut pour ñi nga xam ne dañuy waaj rek euh, të dem mu ngi noon képp ku ko ci soxla rek ni ma ko saa su nekk numéro yi ñu ngi noon di daw ci suufu baar d'écran bi soo ko woowee di ngeen jëflante nga am ci di di tawféex aca damay jàll ci beneen ponk yaatal bu baax a baax donte euh, li ci sëriñ si waxtaan di ci yëngatu bëri na boobu am na ci wuuteeg yooyu noonu ndax da nga yëngatu ci mbiram jaaru donte jaaru léegi bëri nañ de. Euh, jaaru man yaakaar naa ba may génn di garanti samay jaaru. Mhm. boo bëri na euh, ñu bëri ñoo xamante ne ci internet bi. Euh, ma si rek di wax ne buñ classe sëriñ si nekk si internet yëpp ne ñoo am jukko bëri na ñuy génn di proposer nit ñi seen i seen i seen i seen i mbir. Ah. am na si ñoo ni seen jubluwaay naxante ak nit ñi la. waaye maa ngi leen di waatal ci yàlla ne am na ñoo xamante ni seen jubluwaay du dara lu dul ak nit ñi. internet nag dafa nekk moyen boo xamante ni moyen moyen de communication la pour euh, nga mën a gën a jege sa askan. yaakaar naa ne suñ toogee suñu ruq rek amaana tey dimbalante bi nga xamante bëgg nañ ko dimbalante ak nit ñi seen wàllu wërsëg. seen wàllu kaaraange seen wàllu dundin pour ñu dund dund mu ci ayib du yomb. waaye nag du question que ne euh, sëriñ bu génn si internet bi rek euh, li ko tax a jóg mooy mu naxante ak nit mhm. na ñu si nekk ñu xam ne seen jubluwaay dimbalante ak nit ñi la. Euh, ma ci lancé rek mooy képp ku nga xam yaa ngi ci nekk maa ngi lay wax na la. Mhm. fekkee naxante ak nit ñi moo la tax a jóg. Mhm. mbiruk sëriñ mën a ko yàq da ngaa judd fekk mbiruk sëriñ. nit ñi di ñaan di ñaanlu ba tey jii nit ñaa ngi gëm ñaan ak ñaanlu may wax nit ñi timit na bu leen kenn nax ngeen yaakaar ne ki leen nax ak ki leen naxagum ñooy xem Mm-hmm. am na ñoo xam ni lii seen mission mooy dimbalante ak nit mm-hmm. am na ñu nga xamante lii seen mission mooy njub ak ragal yàlla ma leen di wax na leen fan ndax daan taa ba léegi boo fa demee fekk ay tepp tepp mm-hmm. ñun yàlla dimbal nañu suturaal nañu gëstu nañ eh, comme ci wàllu jaaru boobu nga wax ba may génn di garanti sama gàllaaj sama jaaru amul benn sëriñ bu nga xamante ni mën a taxaw gay garanti ne li ma la jox soo ci gisul sa bopp nga ñëw delloo si ko maa ngi lay wax yow mi may seetaan nga delluwaat samay vidéo Eh, deux mille dix neuf deux mille dix huit deux mille dix sept deux mille seize mhm. ba deux mille quinze jëm ci gannaaw mhm. xoolal vidéo yooyu noonu ba tey communication bi ma doon communiquer démb ba mu lay communiquer te du mu ci jokk mooy na si yenn gàllaaj yoo xamante ni képp ku nga xamante yàlla na ko mhm. ñi yëkkati ko teg ko sa loxo man dama la koy garanti man saalum saalum laa fi ma dëkk si saalum nëbbuma ko maa ngi dëkk dëkk bu ñuy wax payoma eh, fi ma dëkk si géejawaay tamit eh, majeure partie bi ñu ko xam bëri nañ kon euh, ñun lu ñu def wuñ ci waaye nag maa ngi bàyyiloo xel samay euh, moroom ñi nga xam si ñu ngi si internet bi mhm. bari nañ ñi euh, ŋàñ ñi sëriñ ci nekk si internet bi mhm. waaye waaye nañ fexe ñu góorgóorlu ba lañ ñuy ŋàññee du nekk si ñun képp koo xamante ni yaa ngi ci li nit ñi di wax maa ngi lay dénk na la na nga reculer waat mhm. na nga dem nga gëstu ji pour nga xool nan ngay def ba dimbalante ak nit ñi seen soxla pour ñegg fañ soxla waaw ah, lii daal laa am laa am lu ma ci wax ci côté sëriñ laay dugg sax yaatal hmm. bu baax a baax ndax classe laa ko mën a wooye xaw mën laa ko mën a wooye sa diggante ak sëriñ si hmm. ak euh, sëriñ si léegi ku jóg ñaan ak ni ñuy ñaan lan nga ciy wax hmm, non man classe suma waaye ñu bëri ne mën nañ ko jàppee classe waaye du classe ah. Euh, li may wax toujours rek mooy loo nekkut taalibeem doo nekk sëriñam. lu leer la. métier yi nekk bëri nañ métier bu si nekk rek am na si ko nga ni dafa jokk. Mhm. pour euh, pour ñagasal métier ba. Euh, tey seen métier journalisme bi. Mhm. am na si ñoo xamante ni amuñ ci maîtrise. Ah. dañuy génn. Mhm. di ni ñuy poser nit ki question sax duñ ko xam. am na si tey boo demee si ay millier mécanique. am na ñu xamante ni tey amuñ ci maîtrise. waaye ñi ngi jóg pour. dóor nit ki si ay pièces pour mën a am pour mën a am luñ dépassé ba ci tey wàllu sëriñ gi tamit daf ci am mm-hmm. man na li mu ciy wax nit ñi jàpp ne classe la duhut classe mooy li may wax mooy yow mi nga xamante ne ndaw nga mm-hmm. yaa ngi toll sa vingt vingt ans vingt cinq ans gisuma lenn lu nga xamante ne war naa tax ngay profité di yàq sa àdduna mooy toll nga ci jàng mm-hmm. demal nga jàng ci toll nga ci gëstu demal nga gëstu ji toll nga ci jaamu yàlla am nga kàttan pour mën a jaamu yàlla na nga jaamu yàlla ba yaakaar ne suba ngay dee ndax yàlla man la jox lijaaba nga fexe ragal yàlla gu mat sëkk nekk ci yow ah. su ko defee eh, di nga mën a dimbalante ak nit ñi seen soxla yi fañ xegg mm-hmm. bañ xegg fañ soxla ah. eh, bu fekkee ne nag danga ñëw rek gis ne ah Ibrahima Gaye mii de eh, man ak moom ñoo bokk dëkk wala Saalum la dëkk wala nangama naa nga gis ku muy dawal kat-kat mm-hmm. gis ko mu dëkk ci kër gu baax nga yaakaar ne lii dafa ko amee ci ay tappale tappale lim la may tey suba dina la ko xañ ah, te tappale mëntu yàgg mm-hmm. déedéet mëntu yàgg parce que fi koy commencé ak fi nit ñi di découvrir ne tappalekat nga euh, du yàgg léegi nag euh, à l'âge de vingt ans nga commencé li ngay def maa ngi lay bàyyiloo xel ne yaa ngi jëm mag te balaa ngay egg si yenn âge yi nit ñëpp danañ découvrir ne yow tappalekat nga te ni ngay gën di màggee di gën di màggat di gën di am njaboot léegi nag imagine toi tey nga dama dama dem ba nit ñëpp découvrir ne kii nii saay-saay la kii li muy wax li muy woote nekkut si moom kii jinne yi mu woote nekkut ci moom kii xam bi mu woote nekkut ci moom Euh, adduna bi yëpp yëpp découvrir loolu parce que léegi euh, euh, internet loo xëy publier rek ay junne junne nit ñoo koy seetaan. yaa ngi dégg leneen tegee na ci TikTok bi partagé vari détails yooyu noonu. Mhm. léegi nit ñëpp dem ba weddi la. est-ce que tey yow di nga mën a liggéey ti beneen liggéey bu nga xam ne dina la mën a may loo suturaloo. dina mhm. parce que benn. Mhm. commencé nga sol am na mbubb bu nga xam ne sol nga ko ndax mbub boobu ne dana yombe simbi moo tax toujours damay wax ne ak sëriñ nekkut ci ay grand mbubu mhm. ak sëriñ nekkut ci sol yére yi rafet wane ne man nii la toll wala nga yor téléphone di wane ne yor naa ay iPhone yor naa ay na ak sëriñ nekkut ci loolu ñi mhm. nga ak sëriñ ci la nekk ci ragal yàlla ak njub ak nga fas ki ne jël am engagement ne man eh, li tax ma dugg ci lii mooy dimbalante ak nit ñi seen soxla yi mhm. sëriñ nit danay jàqee fële ñëw mu dimbale waaye sëriñ sëriñ pire nit du jàq mu ñëw yokku njàqarem nit du nit du am nattu mu ñëw yokkal ko nattu mhm. yokku nattu nag mooy tey nit ki joge fële yaakaar la ah. euh, si jafe-jafeem am na problème mu àdduna mhm. am na problème liggéey am na ay détails yu nga xamante mu ngi ci moom yaakaar na ne si yaakaar kenn ku yow déplacé wu dëkk ba dëkk mhm. bu ñëwee ci yow dalal ko bul séentu ndax kii am na xaalis wala amul xaalis Mhm. te pour man sëriñ pire da ngay dimbale nit ku nga xamante ne amut nga fexe daf ko mu nekk ku am. Mhm. dangay xool lu nga xamante ne dara nekkut ci. Ah. nga fexe daf ci dara man foofu la ñuy foofu laay xamee ne kii sëriñ cent pour cent mhm. duma la ñaanal. ku amut duma la seetal ku amut nangam détail yooyu eh, da ngay gis ne après eh, classement yi nga xamante ni nit ñi dañ koy classe sëriñ si. di wane ne ñëpp ci dóor lañ nekk ñëpp ci wutam dara lañ nekk. su boobaa loolu day mujj ñëw dal suñ kaw ñun ñëpp. kon maa ngi leen di woo si ñu rafetal ah. kon li may wax duut classe waaye maa ngi leen di woo si ñu rafetal mm-hmm. yow mi nga xamante ni ndaw nga maa ngi lay woo na nga góorgóorlu ci xam-xam mm-hmm. pour ëllëg boo toogee sa place nga fees ko loolu toujours rek dama ci dénka dama ciy dénkaane di ci mm-hmm. dénk sama bopp di ci dénk ndaw ñëpp ñu bañ yàkkamtu ñu àdduna ñu xam ne xëy-xëy am xëy-xëy ñàkk nañ daf ndànk-ndànk ñu téye suñu kurus di jaamu yàlla fexe di sellal di gëstu nag wàllu lasraar képp ku nga xamante ne bëgg nga see xegg fenn fi mhm. nga dem ba am yenn âge yi di ci di ci di ci di ci dund sa wërsëg di ci gën di tuuru il faut nga nekk nit ku nga xamante ne nit ku sell ngay doon nangoo jaamu yàlla te itam mhm. jëflante bi ngay jëflante ak nit ñi nga teg ko mhm. si tappale a nekk si tappale nga bëgg dundee gis nga nit ñi di war ay kat di yor ay euh, ay kër yu baax rek nga ne naa ci dugg mhm. maa ngi lay wax ne lay yaa ngi jëm ci musiba boobu nga xam ne xamoo si bañ a yàkkamti nañ fexe ñu góorgóorlu tamit si dimbalante ak nit ñi si seen soxla yi bañ a yegg fañ soxla ndax yaakaar dafa rëy te yàlla nañ yàlla musal Euh, si nit kuy tas yaakaar. ku tas yaakaar doomu aadama yàlla tas yaakaar. waaw <laughs> jërëjëf ci kàddu yi waaye jërëjëf ci leeral yi kooku di Cheikh Ibrahima gay <laughs> am na solo ci ponk boobu nga xam ne ci lañ desoon di ci yaatal bu baax a baax ngir ñi nga xam ne ñu ngi taatan dinañ am loo xam ne dinañ ci jëriñu. <laughs> atya am na foo xam ne fa laa waroon a tàmbalee sax mais weesut mu di mbiram seet wala listixaar ne ma ko waxee su nekk. comme que yéen balaa li ci ëpp ci yéen balaa ngeen a ñaanal kenn di ngeen ba xam. li ngeen ko war a ñaanal lan lay doon ngeen seet ko seetal ko ma ñëw ci ni ngay seete euh, seet ak seetlu loolu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko digal bu ñuy dugg ci mbir nañ koy càmbar nañ koy xool mm-hmm. moo xam mi soxna moo xam mi liggéey moo xam lu mu ci mënta doon rek di gëstu say mbir loolu loolu ndigle la waaye nag am na yoon bu nga xamante ni dafa dafa xaraam am na yoon bu nga xamante ni dagan na pour jullit bi di ko def dégg nga mm-hmm. euh, ñun dañu dañ dañ koy def waaye li may wax toujours mooy sëriñ ñu ngi koy maanaam tàmbaliwaayu sëriñ ñi ngi xool ndax moom mat mën naa seet wala mëntu seet. Mhm. foofu la nit ñi di gëmee ne sëriñ bi am na baatin wala amu baatin. bépp képp ku xam yaa ngi yëngatu si si wàllu sëriñ. Mhm. te amula baatin mënoo xam e, biiru nit ki pour nga jëflantee moom yàgg fenn fi day day jafe. Mhm, e, parce que bool boo ci bëgg a def dara. il faut nga raxas ko say bët nag su neexut pour nga mën a gis tilim tilim yi nekk ci taas taas yi nekk ci biir bool bi da ngay gis ne pour nga raxas mu set dina nekk problème mm-hmm, mm-hmm. léegi nag lii lay dimbale euh, nga mën a xam tilim tilim yi loolu nag mbiru baatin la te sëriñ bu amut baatin mënoo egg nit ki ba mu egg fa mu soxla mënoo ko egg ci ñaanal ko ci taxawu mm-hmm. ci sarax ci mbir mu ci mën doon ba mu egg fa mu soxla te ñaan bu ñu waxee wàllu sëriñ euh, euh, premièrement téye kurus di ñaan ci bokk ñaan yàlla lañ wax ah. nga taalal sa ñaan yàlla nag euh, téye kurus si bokk sarax si la bokk euh, téye sab alquran di jàng si la bokk wala nga téye say xasaayit yi nga xamante ni ay mag dañ koo ràbbu euh, ci wàllu ñaan nga nga nga ñaan ci ci bunt bi nga xamante ni muy buntab yàlla mi yontu yàlla Muhammad mhm. nga ñaanee ko fa yàlla faj sa aajo dégg nga léegi nag bu fekkee da nga nekk nit ki nga xamante ni sëriñ moo xamante ni amula baatin pour nga xam sarax te ñàkk xam saraxu nit ki mhm. day nekk lu nga xamante ni lii lii tardeel wàllu ñaan la sarax dafa am solo mhm. sab nit ngay jëflante moom am na ñu nga xamante ni tey euh, bu ñuy jëflante nit ki ci ñaan mhm. sangat sax duñ ko ko jox waaye nag dinañ ko digal sarax gannaaw bañ téye seeni kurus mhm. gis nga maa ngi wax ne sangat yeeg këyit yu bëri yeeg détails yu yëpp ay deuxième la gis nga sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay ñemee si jaada dangay ngay ñeme kurus ah. parce que fajuk aajo mu ngi si ron sijaada waaye duut nit bu ñëwee rek nga koy tànqal ay affaire yaa ngi dégg di ko jox ay kayit yu kii yeeg yooyu yëpp amul solo mhm. le premier mois premier li nga xamante ni mooy premier si ñaan mhm. mooy na nga nekk nit ku nga xamante ni da ngay téye sa kurus da ngay da ngay toroxlu si pay yàlla bi mhm. yaa ngi dégg da nekk nit ku nga xam ne da ngay ubbi sa xol bi daf ci jaam yàlla yëpp ngir boo fëggee bunt bi ñu mën laa ubbil waaye bu fekkee da nga bëgg a nekk ñaankat te mhm. sa xol bi xat lool yaa ngi dégg yéene woo nit jàmm mhm. maa ngi lay wax ne la doo am jàmm te sëriñ nag am ak moom mooy mi am résultat mhm. sëriñ bu amul résultat du am tawféex léegi na li lay may na nga am tawféex mooy nga nekk nit ku nga xam ne da ngay nangoo jaamu yàlla da ngay nangoo téye sa kurus ngay nangoo yàgg si sijaada di ñaanal jaamu yàlla yi pour seen xaaja mën a faj nekk ku nga xamante ne da ngay xam sarax ba nga xam ne képp ku nga xamante ne ñëw na tawatal ay mbiram mm-hmm. ngir nga xoolal ko wala nga xool gàllankoor yi nekk ci moom ah. nga yàlla dimbale la nga mën a nekk nit ku nga xamante ne kuy xam sarax nga mm-hmm. su boobaa gannaaw soo ko waxee na ko sarax yi dafal saraxu nangam nangam yàlla mën na cee doxee ubbi ay mbiram kon nañ góorgóorlu ci gëstu baatin macha allah nañ góorgóorlu tamit ci téye kurus di ci sonn te di ci yàgg nag mm-hmm. di toroxlu ci kanam yàlla bi ngir aajo jaam yàlla yi mën a faju ndax yaakaar yi dafa bëri te problème yi bëri nañ ndaw ñi bëgg nañu ubbeeku jigi mhm. góorgóorlu ci na la ñuy def ba ubbeeku mhm. jeego bi ñu jeego di ñëw ci sëriñ gi kooku yitte la mhm. yitte boobu noonu bu ko nit ki amee ñëw ci yow yow tamit na nga am yitte toog téye sa kurus na nga am yitte toog fëgg buntu pee yàlla bi ngir ñu faj soxlaa kooku noonu. waaw am na solo ndax euh, yaatal na ci ba dugal na ci li ci sarax. ba mhm. wax na leen secret bi nekk ci sarax. Mhm. waaye li mu mën na ñoddi ak li nga xam ne mën na koo fànq jërëjëf ci leeral yooyu ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi. Mhm. Euh, gët ak nopp di site bi di 221 people ñu ngi leen di kontaane bu baax. acca damay dem ci mbiram këyit su ma nee këyit nag liñ ci mën a yaatal bëri na. ndax euh, ci biir réew mi ak bitim réew li ci yëngatu bëri na waaye seen i yëf day xaw a ñenn lu dut yéen ñi nga xam ne euh, ay ñaankat ngeen. Mhm. ci mbiram këyit lan ñu ci mën a baaxee. Euh, man daal li ma lay li ma lay wax ci gàttal seex. Ah. mooy bépp xaajo bu nga xamante ne jaamam yàlla bi am na ko. Mhm. ak bu mu ci mëntu doon yàlla lañ koy laaj. parce que damay wax ne ñaan yàlla yàlla moo ñu wax ñaan leen ma may leen sant leen ma dool leen. Mhm. ñaan yàlla nag yàlla bu ma waxee ñaan leen may leen. maanaam waxut ne xéeféer bi dafa war a ñaan walla jullit bi wala nangam nangam nag ñaan leen ñëpp ñëpp la kon ñëpp war a ñaan yàlla képp ko am aajo war nga ñaan yàlla waaye nag lan moo tax nit ñi di jóg di jublu si sëriñ si pour ñaan leen parce que dañ ko yaakaaree ci ñoom ah, dañ yaakaar ne sëriñ ci ñooy ñaankatu yàlla yi mm-hmm. kon waaye waaye waaye yow mi nga xamante ni nit kii dafa la yaakaar si këyit mm-hmm. pour nga ñaanal ko yàlla pour mu am këyit pour mu am nationalité pour mu am permis conduire pour mu am pour mu am pour mu am. maa ngi lay wax ne la bul tas yaakaaram boo ñaanee rek yàlla may la yàlla amut lu ko nit di ñaan. mu rëy fa yàlla amut. lu nit di ñaan mu fa yàlla. amut nag lu nit di ñaan. te yàlla du ko maye amut. parce que amut lum amut. te yàlla lim am doyawut ko dara moom xam na ne ñun soxla nañ ko moo tax mun a ñaan leen ma. kon nañ am yitte def ay jéego pour ñaan pour mu man mën mu mën a faj ajo yi. macha waaye bul toog rek. Mhm. ubbi sa gémmiñ woote na bépp aajo bu nit am. Mhm. nga faj ko si vingt quatre heures. yaa ngi dégg bépp aajo bu nit am nga faj ko si dix minutes di tëdd di nelaw da ngay wax lu neex rek gis nga yàlla li muy maye. Ah. li muy joxe. Mhm. il faut nga am yitte di kirti kirti pour mën saa jot. président de la république rek tey boo ko bëggoon gis. di nga def ay jéego. nu ne di nga ko def pour. Mm-hmm. mu mu euh, da nga def da nga demande audience di nga def ñu ne. Mm-hmm. pour mu recevoir la. kon nag waxuma nag bu màgg boobu noonu nga xam ne danga nga ko bëgg. Mm-hmm. danga ko yittewoo ngir mu faj euh, soxlaa jaam yàlla yi. kon gannaaw boo waxee nit ñi ne leen. seen soxla dinaa ko faj ci vingt quatre heures. bul dem te dina law de demal nga góorgóorlu ji sa kurus. nekk ci bañ te am jàmm. nga nekk si. Mhm. ba yàlla faj xaajo yi. parce que boo ci nekkee rek mu faj ko. boo ci nekkul nag da ngay sonn rek chaque jour rek ñu ne sëriñ diw bu ma ko joxee sama xaalis nangam nangam. Mhm. fi li fi ngay dem da ngay dama dama dem ba yow si sa bopp yow sëriñ bi. Mhm. dootoo dootoo xaj xajoo ak nit ñi da ngay xat. parce que nit ñëpp dañ lay weddi. yaa ngi dégg mhm. nga dama dem ba dootoo ñeme wax téléphone da nga dama dem ba dootoo ñeme génn sati dox fi ngay mujjee mooy di wut ay garde corps ay détails yooyu noonu te damay wax ne jaru ko yooyu yëpp jaru ko mhm. taalibe daal taalibe lay doon fexe góorgóorlu ci mbiru taalibe eh, ba ba ba soxlaa nit ñi xegg fañ soxla man na duuma sëriñ bu nga xam ne danga may poser question ci benn affaire rek mhm. ma wan la ne la man maa ko maîtriser keneen maîtriser wut ko waaye nag maa ngi wax nit ñi ne leen soxla yi mu ci mënti doon nañ ciy góorgóorlu rek xam ne réyut fa këyit ak lu mu ci mëntu doon amul lu rëy fa yàlla yàllaa koy maye. Mhm. te buur la bu nga xamante ni du fi jóge yow mu koy ñaan nag na nga sax di ñaan rek. ba may la. jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima Gaye ci ponk yooyu nga xam ne ci lañ nekkoon boobaak léegi di yaatal hmm. mu mel ni ci li fi ñu jot a jaar sax suñ fa yemoon rek ci premier ponk yi émission bi neex na ba pare ndax yaatal nga fa xam-xam gis nañ fa njëriñ bu bëree bëri acca waaye niñ ko waxee comme que temps bi ngoj nañu dañuy dem jeexal dama jéem a dugg ci actualité su ma ne actualité suñu xam dina jëm ci kan bi hmm. foofu it bëggoon naa xam lan nga fi indi comme analyse ndax euh, xel yëpp lenn la de. Mhm. nuñ mën a def ba coupe bi ñëw fii. waaw jot na yor nañ équipe bi ni ma koy waxee saa su nekk. Mhm. nañ ñaan yàlla rek te bañ di génn di wax euh, sëriñ nga gis nga gàllankoor ci équipe bi Sénégal bu jëlee coupe bi Sénégal la ñuy wax. Mhm. duñu wax Macky Sall moo jël coupe bi dañ naan senegal a jël coupe. Ah, Sénégal. Euh, sëriñ nga doomu senegal nga. taalibe nga ndong daara nga. Eh, am nga yaqin si sa kurus gëm nga ne loo ñaan yàlla dina ko nangu maa ngi lay wax ne téyel sa kurus nga ñaanal Sénégal mais pas di génn di propagande ay mbir yu nga xamante ne tegula ko fenn si loo duufalee sa bakkat bi rek nga koy teg di woo nit ñi ay personnalité pour ñu indi la ay affaire pour nga def sax jarut ko yaa ngi woote ne yow taalibe nga te ñàkkoo dara taalibe ñàkku dara lum laaj yàlla yàlla dina ko jox gis nga sarax eh, dafa da nga gis gàllankooru équipe bi. Ah. nga gis sarax jëlal sa moyen nga def ko bu ci xaar kenn. parce que ndam li sa ndam la. Mhm. dégg nga mais pas di génn naan danañ jël coupe bi wala duñ ko jël danañ xegg fii wala duñ fa xegg loolu yëpp jarul ko nañ ñaan yàlla ñaan amul lu mënut. te ñun nit ñi dañ yaakaar ci ñaan. gis nga senegal gii da nga gis ku jógee ba bitim réew. Mhm. nekk nit ku weex tàll xamut nanga nga def maa ngi fi xamut ko. ñëw si doomu saalum saalum bi wala ñëw si doomu bool bool bi mhm. nga xam ne si gàjj ba la juddoo ah. ñëw yaakaar ko ci ñaan ah. kon nañ ñaan mhm. ñun nit ñi dañuy yaakaar si ñaan jaam yàlla yi dañuy yaakaar si ñaan nañ ñaan kon ñu bala nga tàggatoo ba yeneen jëmi allah. <coughs> Euh, alhamdulilah. Mhm. Euh, li ñu tàggatoo rek di ñaan yàlla jàmm. Ah. di ñaan yàlla at bi at bu ñu ngi si dugg at bu bees bi. ñu ngi si ñaan yàlla yal na si yàlla daf taw féex. feebar bu ñuy jàmbat ne duggaat na si àdduna bi. mi mhm. euh, euh, corona bi. Mhm. lu ne nañ ko koy tuddee nag. Ah, lu nekk euh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko fi mhm. yàlla jeexal. ñaan mën a lu ne li may wax rek nañ ñaan. Ah. ñaan mën na lu ne di ñaan yàlla président de la république monsieur Macky Sall. yàlla na ko yàlla taw tawféex. élection yi nga xamante ni si lañ jublu nii. muy élection maire yi. Ah. yàlla na si yàlla def jàmm. ba bu si benn bakkan wadd benn sëriñ si see wax nag bakkan dana ci wadd ak. ay naan làmb yi bakkan dina si wadd ak waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu benn bakkan wadd si mm-hmm. euh, mbir yu demee noonu mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla ñëpp am jàmm ah. euh, ajo yi bëri nañ euh, ñi nga xamante ne am nañu aajo yal yàlla faj seen i mm-hmm. ñu ngi ñaan tamit ñun képp ku nga xamante ne tawatal nga ñu aajo yal na yàlla faj ko bu fekkee na sa aajo nartu fajoo ci ñun ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu jëflante bi am suñu diggante ak yow Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu waay Saalum yëpp di nuyu fa ma dëkk di Payoma. Euh, di leen euh, sargal tamit ci teewaay bi nga xam ne teew ngeen ko ci kër gi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh